Traoré ñu laal di koy fekk nag ci foire bi nga xam ne moom la Dabaye organisé alors Fatou maa ngi lay. fay chéri ko maa ngi lay fay. lu lu waral tey teewaay bi ci foire bi. waaw man de xam nga Dabaye moom heure bu wootee da ngeen may gis ndax euh, jigéenu jàmbaar la te Fatou Waré ku ko xam-xam ko ci teel a xëy guddee wàcc bëgg liggéey. ah ànd ak jigéenu Sénégal yi xam nga léegi moom boo gisee euh, li nga xamante ne mooy leadership féminine bi dafa dox ci Sénégal te jigéen ñi dañu de bëgg di def ay entrepreneuriat dañu bëgg di liggéey dañu bëgg di investir ci seen dëkk rawatina nag ma am fi ay nit yoo xamante ne ñoom heure suñu génnee rek da ngeen di gis Fatou Waré man si c'est important rek je sors. waaw sa relation ak ko doon. waa Dabaye dafa nekk sama mag bien avant que muy sëy ak sama frère tey mu dem ba nekk jabaru Arma Arma ku xam sama diggante ak moom xam ne sama nit la kaw lalu yaayam laay tëdd fa laay lekkee kolle waaw noonu laa mel ak Arma yaayam Arma yaayam moo gën a nekk sama xarit ak seen waa kër da bàyyi nekk sama nit boo xamante ne dañu xamante avant Arma Ndiaye boobu maa ngi ci groupe bu Ndeye di fecc rawatina nag Arma ñëw dooleeku ci mu nekk beneen relation mu nekk sama xarit nekk sama nit da bàyyi nekk nit ku serviable nekk nit ku baax ku humble ku nangoo liggéey. Fatou dañuy ñëw ci yow tuuti. balaa ñëw rek tàggatoo parce que ci foire bi la ñu nekk quand même Fatou lan moo tax euh, gisatuñ la lu bëree bëree bëri ci réseaux sociaux yi quand même. Ah, mais dara déggo man la man si c'est important rek je sors man si c'est important rek je boo ma gisee rek mooy farata am na. <laughs> te xam nga euh, ak euh, sama yaay bi mu gaañoo ba léegi defuma activité danse bu baax a baax a baax a baax loolu moom moo tax mais maa ngi fii maa ngi ci Boubacar Diallo yaa ngi koy gis maa ngi i rajo te bientôt di ngeen am ay émission yu bees tàq ci ITV des fois aussi ma dem voyager xam nga nekk ci samay master class ñëwaat te man sama lépp dama ko def dans le discret waaw. ñu bari wax nañu ne léegi fecc bi da nga koo jël def ko classe dafa am clip yooyu fecc. ak clip yoo dul fecc. waa loolu nag moom c'est vrai ndax man clip bu ma répété wul du ma ko fecc man du ma fecc clip à l'improviste waaw man soo ma woowee à l'improviste ñëpp nag laay feccal ba ci xale buy doog a jóg boo ma woowee ne ma kaay fecc dama lay feccal mais des fois day tomb jour de la semaine yi damay dem liggéeyi euh, lu bari duma ko mën a boole te ku la feesloo moo la yàpp loo yéen adduna war na ñoo xam ne Boubacar fu ma dugal loo sama loxo war naa ko faa dugal te la mu ma jox ma toog fa di ko ko géreel daf maa jaral ma war bàyyi lu bari ndax faaw nga bàyyi dara pour mën a def dara te moom jar na ko il vaut la peine. mais seen relation quand même yéen ñaar naka la demee parce que gis nañu ni Boubacar Diallo la aussi ku la ku la jege la te ku la bëgg la seen relation. waaw suñu relation demeewul neen lu dul diggante papa ak doom mu nekk nit ku ma sentir bëgg li may def moom man la bëgg te yàlla tax may remercier famille wam ak ay njabootam ak i soxnaam ndax ñoo ko ci bàyyi. tey bu buñ ci waxoon leneen rek leneen am ci mais Boubacar kooku dafa ma bëgg te yàlla tax te loolu du tey waaw da ñu am complicité bu gra comme papa doom man ak moom li ñuy dund ci suuf moo ëpp sax li nit ñi di gis waaw parce que sama papa la sama frère la nit ku baax la nit nit la koo xamante ne soo ko jegewul mënuloo ko xam xam nga nag àdduna dafa toll si nit balaa ñu naan mm, kii dafa baax rek ñu offrir la de luxe wala quelque chose comme sa or que tel ne pas le nit dina la defal loo xam ne sa avenir mën na si jàkk moo ëpp importance yi nit ñi di xaar nañu wàññi ni ñu matérialiser dëkk bi torop torop torop ba bàyyi valeur yi nañu gën a valoriser doomu aadama yi ñu wutal suñu boppu valeur wut fulla ak fayda ak personnalité ba pare parce que nit da ngay defar sa avenir balaa ngay wax waxu tey affaire yi du luxe nécessité la nañ ko jàppee noonu te ñu régler suñu bopp defar suñu avenir li nga xam ne moo ñuy dimbali suba mais pas pour tay tay nii rek kii am na lii dama koy am kii def na lii dama koy def non non non non c'est pas ça une vie. mu taamu la quand même ngeen di bokk émission yéen ñaar ak nim la ci dugal. waaw loolu moom moom nga koy laaj moom <laughs> loolu moom moom moo ko xam waaw moom moo ma bëgg def émission santir ma ci woo ma ci biir xorom ci cin ma ñëw di pelloog moom te bu dul man da koy def ndax lim ci xam xaw ma ko chaque jour mu rectifier ma waaye terewul man la bëgg rek teg ma si wetam. ah non non non non waaw parce que xam nga man ak moom dañu am benn compatibilité Boubacar su waxee dara rek dama koy dégg man su ma waxee dara moom moo ma gën a xam jamono li mu xam si jamono xam nga ku la mujj si néeg bu lëndam moo lay wan fooy toogee te lim ma si dimbalee mooy pédagogie bi mu am moom dafa am pédagogie ci li muy def technique bi mu suy am su ma waxee même lu ma warul wax day am dina ko defar ba mu rafet te ñiy déglu du ñu xam ne sax man lii waruma ko wax waaw ah mais bien sûr. parce que ñu jeex barki Seydina Mohamed du ñu jeex non du ma dem bubakar moo tax ku la fees loo moo la yàpp loo man pare naa si télé ak rajo dootuma dem télé kenn dootuma dem télé rajo kenn parce que euh, bu may judd loolu nekkul woon sama profession. waxoon te tey réccu nañ ko ah loolu nag c'est des chose différentes xanaa Boubacar jàpp ci sama loxo ne ma demal nga def lii. bu boobaa à la rigueur parce que man moom xam na si dara nekkoon na si beneen télé woo nañ ma fa pour ay émission nangu ma ko woon def musuma bëgg def tele wala rajo musuma ko bëgg gisoo euh, dans la mesure où kenn gisatuma ma fecc parce que mënoo di yow 7 heures du matin préparé pour xëy après guddi nga dem di fecc ba 5 heures du matin noo dootoo liggéey voilà Fatou Waré kon nga baal ma euh, ngir ñu tàggatoo quand euh, sa situation dëkk bi tey noo ko noo ko jàngatee nga nekk doomu Sénégal nekk sénégalaise juddoo ci réew mi màggee fi situation dëkk tiit rek tiit naa tiit naa tiit naa sama fit bi dem na man dama tiit rek damaa tiit ndax Sénégal fi ne daa mel ni nokk su dëxin kenn xàmmeetul lanay lan góor ñaa ngi dem ci gaal yi di dee jigéen ñi ku leen di takk góor ñaa ngi ci prison yi góor ñaa nga ca volet ba góor ñaa nga ca suus ba góor ñaa nga ca ivorogne ga góor ñaa nga ca leneen ak leneen ak leneen waa jigéen ñi ku leen di takk ñi dee ci manifestation bi ñi dee ci euh, géej gi ñi de ñi dee ñi dee ñi góor ñii ñi ngi mandi di daanu ñii ña ca kaso ya ñii ña nga ca géej ga waa léegi jigéen ñi ku leen di tak ñun dèjà ñu ngi ñuy takk par ñeent ca jeexaguñu après ñuy dee di ci topp ñun ku ñuy takk man tiit naa torop daal vraiment heureusement ba jar naa waaye yéen ñi jaragul yal na leen yàlla jaral ci jàmm du ngeen jar de góor ñi jeex nañ de góor ñee jeex dañoo dee ba jeex ah man de sama bos takkul kenn nee na takkul nee man la bëgg kontaan naa ci yéen nag wax dëgg yàlla maa ngi leen di remercier ak seen euh, mbokku internet yi nga xamante ne ñoo leen di seetaan di leen féliciter bu baax parce que yéen tamit yéen a ngi jàppale nit ñi ak jeune entrepreneur yi fu lu nit ñi le ngeen jël seen caméra ñëw jël ko ba mu rafet dugal ko ñëpp suivre ko yal na leen yàlla defal jàmm boole leen ci programme yu mag a mag mag yi ci barke Cheikhul Khadim. tey ndax gëm nga ni ku mel ni Ousmane Sonko war nañ ko toppee vol de téléphone. sama yoon nekkul ci sama yoon nekkul